Isidore Coly ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, yow yaa di secrétaire général syndicat gardien ak agent de sécurité Sénégal ñu gën ko xam ci SAGAS. waaw. voilà euh, dañuy tàmbali à la CSA confédération des syndicats autonomes. d' accord merci euh, ñu tàmbali ko ak actualité ak Kër Massar ay fan rek ñaari fan ab gardien la ñu fa faat dañ ko tiire bal le ca Kër saar gannaaw ba ñu doon jéem a braqué euh, benn bërëb bi nga xam ne gardien bi moom foofu la doon euh, liggéeyee lan moo ci sa xalaat. waaw ñun euh, dañ koy naqarlu d'abord te di jaale aussi mbokku agent bi ñu xam moom la rey foofu parce que li am kenn rafetlu ko te ñu yaakaar loolu war na mën a dagg dans la mesure où nit moo ñëw di daan dooleem ah même su fekkoon sax nit ki da ngay cambrioler sax mun nga cambrioler mun ngeen def beneen méthode bu dul eh, bu jëm bay ba bay rey nit ñun yaakaar naa loolu la ñuy rafetlu parce que euh, li nga xamante nag moo am Kër Massar yàgg na yàgg na fi mais c'est parce que dañuy jël ay ay ay euh, ay magasin nga xamante ne alal moo fa ne di jël ay ay boutiques yi nga xamante ne alal la fa nekk di ko dënk ay nit ñi nga xamante ne amul benn assurance soo gisee ma ne amul assurance moo di ne tey jii vigile bi tey jii buñ ko ligoté woon dugg ci biir magasin bi sàcc fa lu lu lu lu ne du am benn assurance buy fay buy fay buy fay borom magasin bi donc loolu moo waral tey jii ñu ne ñu am ay agence de sécurité privée yi nga xamante ne ñoo fi nekk di assurer sécurité bi di def li nga xamante ne moom mooy moom mooy assurer les biens matériels matériels des des personnes tu as vu donc su fekkente ne nag yow nga am alal ba pare nangoo jël agence de sécurité si ci situation yi rek lañ jëm waaw parce que ñi leen di ñi leen di attaqué dañuy am dañu ay arme ah te yow vigile bi nga xam te moom lañ jël foofu amul arme amul dara lu nga lu nga xamante ne mën mën na ko utiliser pour pour pour mën a pour mën a euh, pour mën a aar aar boppam ak ak aussi aar li nga xam te moom lañ ko dënk Mhm. d' accord euh, donc tey est ce que jàppoon ni tey ñoom gardien yi war nañu yor arme pour mën a défendre seen bopp. waaw xam nga gardien yi war nañ mën a yor arme mais day fekk ne yow mi nga xamante ne yow yaa yow yaa yor yow yaa yor magasin bi wala yaa yor euh, euh, banque bi ak yooyu nga demander à ce que agent yi monte sa kër. ah ñu am permis de port d'arme mhm. ak aussi ñu jën jox leen arme bi xam ne moom lañ mën a défendre pour yow ñu assurer sa sécurité mais tant que loolu amul yow munoo utiliser arme te arme aussi duñ ko jox n'importe qui il faut mu nekk nga xamante ni ko jàng na maniement armi yi te xam na ban arme lay utiliser waaw te li gën a jaaxal nit ñi tey jii mooy fan la nit ñi di jëlee yenn arme yi ba koy utiliser parce que kii arme buñ ko buñ buñ ko buñ ko dóor bu nit ñu gëstoo nañ xam ne arme bi arme bi fi mu ko jëndee tamit dina dina parce que arme naka lay mënee dugg Sénégal ay nit di ko jëfandikoo di dox ci biir ci biir dëkk bi te kenn du leen te kenn du leen inquiété mm-hmm. ah yaa yaakaar naa loolu yëpp dañ ko war a dañ ko war a saytu xoolaat ah li fiy dugg ak liy génn waaw parce que arme du n'importe ci lañ koy jox mm-hmm. donc tey jii même agence de sécurité privée yi balaa ñuy yor arme ci fi ñu nekk day fekk ne euh, dañ am assurance que euh, permis de port d'arme am nañ ko war nañ ko mën a utiliser à tout moment loolu su mënul nekk rek nga xamante ne vraiment yow sa sa sécurité des na. Mm-hmm. donc lii day euh, wane ni rek formation bi lu am solo la ci métier bi. formation bi moom dafa dafa yàgg moom ci métier bi mais sa dépend ci yow ban formation nga def. parce que tey jii agence de sécurité privée yi nga xamante ne ñooy agence modèle yi ñoom am nañ seen am nañ seen am nañ seen euh, centre de formation nga dem ci Sagam nga dem Phoenix nga dem nga dem euh, euh, Ligue assistance ñoom ñoom am nañ ay centre de formation yi xam dañuy former agent bi balaa ñu koy balaa koy dugal dans dans dans dans le circuit mm-hmm. n'est-ce donc su fekkente ne loolu ñu ngi ko doon saytu di ko def je crois que am benn problème mm-hmm. mais léegi nga jël gardien nit rek ne ko demal nga garder ma magasin euh, deful art martial deful dara kooku yaakaar naa da nga ko exposé ci ay difficulté rek mais mais deful deful deful la sécurité. Euh, ñu ngi wax difficulté kon est-ce que tey euh, condition yi nga xam ne ñoom ñi ngay liggéeyee jaar jaar na yoon. mais condition yi ñuy liggéey ñu bëri jaarul yoon parce que tey ji nga jël nga jël kenn teg ko foofu teg ko ci benn magasin mu lay gardel ay milliards ba pare yow salaire bi nga koy fay yeggul sax cinquante mille ah amul protection sociale parce que tey jii par exemple agent bi jaañu nii ah amul contrat de travail amul amul IPRES amul caisse sociale parce que tey jii mu ngi mu ngi mu ngi dee ci bërëb liggéeykaayam tey jii fekkoon amoon na assurance su caisse kon tey jii njabootam au moins dina dina mën a bénéficier ay rente mm-hmm. mais mais ko mun a bénéficier parce que parce que rey nañ ko amul contrat amul dara amul dara lu mu signé ak euh, waa ji te waa ji amul aussi dara benn kayit buy firnde ne moom am na as am na am na assurance donc loolu yëpp moo tax muy ñuy indi à ce que ñuy demander ñi nga xam dañ yor alal ñu dem ci agence de sécurité privée ñu leen di garder seen alal parce que su boobaa lu fa manqué wala lu fa kii am nañ assurance que euh, bi dina fay wala wala wala ñu xool naka lañ koy régler ak assurance. Mm-hmm. voilà man yaakaar naa loolu moo tax gëstu bu bëri moo war am ci affaire sécurité bi. ah état bi teg dugal ci loxoom comme ça ñu mën a régler convenablement euh, nu mu teg ci sécurité euh, ci ci réew mi. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, tey kan lañ mën a wax ni moom mooy gardien wala agent de sécurité. waa xam nga gardien ñu ngi koy wax ci ñi nga ki nga xamante ne da nga ko jël mu garder la sa kër mooy sa kër wala nga jël ko ci benn magasin wala boutique pour mu garder la kooku mooy gardien. mais bu ñuy wax euh, agence de sécurité c'est parce que dafa am ay agence yi xamante ne euh, mu am décret buy créer agence de sécurité privée yi ah nga xamante ne euh, da ngay am agrément au ministère de l'intérieur te mu permettre la yow nga nga mën a wut ay marché aussi nga recruter ay ay ay agent di leen di leen leen teg ci bërëb bi nga xam te ne foofu nga am ay client mm-hmm. waaw ñoo ñooy agent de sécurité donc moo tax yëf hein parce que boo jëlee gardien euh, doo ko doo ko jox bulletin de salaire doo ko fay salaire bu baax euh, te aussi euh, doo ko versel IPRES yow yow mi sa bopp doo fay impo doo fay dara donc ñun pour ñooñu ay ay gardien lañ mais bu dee agence de sécurité yow nga nekk ci norme yi nga xamante ne moom la état bi tëral te ngay fay impo di fay IPRES fay caisse sociale di di di couvrir say agent ci IPM parce que loolu yëpp loolu la loolu la charte bi wax suñu convention bees bi loolu la loolu la exiger tey jii képp ku créer société de gardiennage da nga war a référé wu ci li nga xam moom la convention bi wax. Mm-hmm. ak aussi li nga xam te moom la texte yu décret yi wax. Mm-hmm. Euh, tey li xew Kër Massar est-ce que mu ñu ne euh, ñàkk mu jumtukaay euh, bokk na ci ndax nañ nañ olof nee na balaa nga ne naam ne fa bëggoo mënoo garder ay magasin yoo xam ne te yow doo yor jumtukaay yi nga xam ne yow war nga mën a aar sa bopp ngir nga aar li nga xam ne yow moom ngay garder parce que duguleet ñu gis benn gardien bi nga xam ne faat nañ ko à chaque fois cambriolage bu amee wala braquage dañuy dégg ni gardien ba faat nañ ko ca Kër ma saar beneen gardien ba sax jot na am chance ndax moom dañ koo ligoté dóor ko waaw loolu mooy ñàkk njudduwaay parce que tey ji tey ji xam nga tey fekke ne kenn ki kenn ki euh, jàpp nañ ko keneen ki war na waroon na mën a rëcc sax mu siffler bu fekkee yoroon na siffler hmm. mais est-ce que yoroon na siffler est-ce que mënoon na alerter pour que ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw jàppale leen hmm. loolu tamit loolu loolu tamit loolu tamit wax la hmm. nest pas mais man dama yaakaar ne boo amul jumtuwaay waroo munoo assurer sécurité sécurité dañ koy jox mi nga xamante ne am na jumtuwaay te aussi jàng nañ naka la ñuy mën a aaree seen bopp pour ak aussi lu ñuy aaree li nga xam ne moom mhm. parce que loolu mooy sécurité. Mhm. jaajëf Isidore Coly ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay gërëm madame Faye merci beaucoup. di fàttali rek euh, yaay secrétaire général syndicat des gardiens et agents de sécurité du Sénégal SAGAS. affilié à la CSA merci beaucoup madame.